manifestation kenn du couper internet personne ne sentirait même pas le Euh, démb askan wi ñoo doon kaas tey euh, liggéeykatu Sonatel yi la weddi kàddu yi euh, ministre bi waxoon que amul benn impact ci seen secteur. lu ne fàng la te ñoom ñi ciy liggéey. Mhm. tey lu ko ëpp fiabilité amul. te li ñu wax nag ndawul 3 milliards quand mhm. loolu vraiment loolu c'est gigantesque. Mhm. surtout que ñu ne depuis 2023 ak tey jii fi ñu toll jël nañ lu toll ci fukki fan nag ñett yoo xam ne dañ koo xañ nit ñi lii di données mobiles. mu mel ni genre xaaju. weer boo xam ne dañ leen ko teree liggéey loolu nag am na impact bu négatif rawatina ci wàllu koom-koomu ñi ciy liggéey mais aussi entreprise yi ko sekk parce que tamit euh, ñi di euh, entreprise de téléphone yi ñoom it wax dëgg yàlla loolu seen chiffre d'affaires daf ciy dépendre ndax nit ñi lu ñuy gën a utiliser di gën a jënd nuñ gën a jëfandikoo aussi muy gën a dox ci seen i euh, chiffre d'affaires mais bu fekkee ne nit ñu utiliser wuñ données yi ñu aj ko ñoom it mbir mi day taxaw surtout wàllu transfert bi nga xam ne boo seetee ñoom ñu ngi ciy investir ay milliards te loolu it am na njëriñ loolu it lu jara a xool la. Mm-hmm. léegi nag ñoom solution bi ñu trouvé. c' est très simple nee nañu ngir bañ a couper données mobiles. Mhm. nañuy doxal yoon ba manifestation du am mhm. fitna du yeewu su ko defee kenn du couper données te yaakaar naa loolu ab jàngat la ci suñu njiit yi. Mhm. Euh, président Lamine Gueye fi ñu fi ñu toll ci ci jamono ji ak euh, nouvelle technologie yi ndax xel mën na nangu ñu dagg internet ñu ne amul benn impact ci wàllub économie ci réew. non loolu il faut vraiment euh, a pas expert pour savoir. que tey euh, vraiment dara mënul dox sax te xarala yu yees yi du ci dugg rawatina nag internet nga xam ne am na ñoo xam ne sax mooy seen base euh, affaire. Mhm. donc euh, buñ ko coupé je pense que day impacte sur des millions de Sénégalais. Mhm. je pense que dañoo gis ne c'est récurrent. Euh, lu lu xaw a yëngu sax ñu couper internet bi et je pense que tey travailleurs yi ñoo wax mais euh, gëm naa ni sax peut-être ñeneen ñi liñ ciy perte parce que am na ñoo xam ne boo amul internet c'est-à-dire du ñu am activité donc seen base activité c'est c'est c'est la connexion c'est l'internet donc je pense que war nañu mën a xoolaat beneen solution mais pour revenir à peut-être la solution préconisée dëgg la nañuy def ba réew mi daal nga xam ne lépp day tegu ci yoon nga xam ne suba duñu dagg internet bi. président ñu wax ci leneen muy commission enquête parlementaire euh, bi ñu fi teg ngir saytu processus électoral bi bi ñu ko fi tegee ak léegi euh, fanweeri fan ak benn bu weerub janvier la woon kon def na fukki fan ak ñeent waaye boobaak léegi yëf yi dafa tagatembe demul euh, dikkul fi mu ne nag jëwriñ bu ñu denk wàllu yoon moom saisir na njiitu assemblée nationale ngir notification instruction. saison euh, bu ñu war a ubbi euh, bu ñu ubbi euh, ginnaaw plante bu magistrat Cheikh Ndiaye mi nga xamante ne dañu ko tuumaal wàllu guerre commission bi kon liste bi ñu am ci ay njuuj njaaj yoo xamante ne dañu ko njort ci wàllu politique list ba dina gën a gudd donte plainte boobu sax ñu ngi ko déposé woon laata plénière bi ñu ondu ci ak Balde ci taarix réew mi ñuy gis déebu ni gaawee ci commission d'enquête parlementaire bi nga xamee ni waa PDS ñoo ko sooke lëkkatloo ci ak coalition benn Bokk Yaakaar noppeeguñu sax di xam ana ñan ñoo bokk ci bile bureau nag ñu daal di yëgal Sénégalais yi ne faatu ñu sul ko ba daat koy saraxal gannaaw bi nga xamee ni juróom biñ dénk wàllu yoon nag moo bind bataaxal jagleel ko président assemblée xamal ko ni nag ubbi nañu ab instruction gannaaw bi nga xamee ni magistrat Cheikh Ndiaye déposé na ab plainte jëmale ko ci alxam moom mi nga xamee ni nag waa dañ ko daal di tuumal ne dañ koo daal di ger moo ne projet de loi bu ni mel nag dañ koo daal rek baxal ci assemblée ndax nag ñu ngi ko daal di déposé ñaar fukki fan ci weeru janvier ñu daal koy adopté fanweeri fan ak benn ci mennum weer gi moo ne dëkk bi jaxoon na lool bés boobee Dakar ñu daal koy bunkerisé ca fajar jaare ko ci alkaati fu ne ñu teg leen ci mbedd yi ngir rek woytu kaaraange gi jaaykat yi ñoom ñu ci ëpp sax xëy ñu woon daal di tecc ragal ñu daal di caxat caxati seen commerce Dakar daal di wéet lool lépp rek bu fexe ba jàllale boobee loi ca cappaandaw ga nag dara tous naada du lenn ñu mel ni ñuy kokkali sénégalais yi dox leen fii dara ñor fii ba ñu koy màcc moo ne ci boobee loi la njiiti réew mi daal di sukkandiku rek ngir dàq présidentielle bi nga xamante ni waroon nañ ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février loole nag mu ngi ko xamle ñetti fan gannaaw bu ñu jëlee boobu leen dogal ci assemblée nationale yëf yi di ñu rek jeu de dame pion yi di faatu benn par benn lépp daal di aaju ci coobarey buur ba nekk ca palais moom fëgg xam le ni damay gagné ci nii mbaa ci nee ak lu mën a xew cey bi gàcceeti euh, plainte bi bi Alassane Baldé tudd léegi Ndeye Fatou moo jiitu plénière bi ndax buñ ca waxoon ci jamono jooju fii ñu egsi yëpp mënuñ ko woon éviter. mais loolu moo jaaxal ñëpp xadi mhm. dafa mel ni ñun euh, suñu politiciens yi dañu jàppee daal comme ay xale yu jardin quoi ñun dafa mel ni Sénégal garderie la. Mhm. ñu ñuy foyee dañu xuuxalee ay jeu dans jeu yoo xamante ne des fois sax dama naan euh, mujju la neex sax ñi nga xam ne ñooy askan wi parce que wax nga ko plainte bi. magistrat Cheikh Ndiaye. Oh. bi ñu jëlee wax ji yëkkati ko ci début de semaine la dóor plainte bi mu dóoree plainte am teewul assemblée ne dañuy def mise en place commission d' enquête parlementaire léegi nag bu fekkoon ne ñoom. teeloon nañu instruire lii di plainte bi comme ni ko ministre la justice defee tey bind lettre président assemblée yégal ko ni ko li ngeen doon liggéey wàcc na leen léegi ñun waa yoon jël nañ dossier bi amee dañ koo yóbbu instruction kon arrêté leen commission d' enquête parlementaire bi moo tax ba ñuy bañ plainte bi di yëngu mhm. ñu mën a def commission d'enquête président jëlee ko comme prétexte crise institutionnelle bi nga xam ne moom la ñu tegal ci table bi ba def report des élections mhm. parce que ñu nit suñuy xel nu ñoo teree xalaat mhm. mënuñu jël commission bi def ko ñëpp doon xaar ay preuve ñu jël mise en place bi am na sax ñu si doon wax naan euh, waa Benno Bokk Yaakaar seen i député ñoo ci ëpp kon affaire bi mën na am dina takk suuf mais loolu moom ci configuration wu bi la waaye bu weesoo loolu tey léegi après loolu yëpp ñuy xaar ay preuve xaar enquête xaar ay audition parce que commission bi dañ la woon dañuy auditionné ñu ne léegi jeex na maanaam dafa mel ni dañoo ubbi école tëj école ci même jour Mm. léegi avec ça ñu ne ñun am nañ année scolaire loolu la ñu def ci mm. affaire commission d' enquête parlementaire et ça mm. franchement c' désolant te dafay mm-hmm. gën a wane ni suñu politique yi fiabilité ak crédibilité bi ñu leen di accorder des fois mm-hmm. dafay des parce que ci au fait bu ñu leen ci jëlee dañuy wone le contraire te te président Lamine yi di fàttali ni installation boobu procédure d' urgence la woon waaye dafa mel ni urgent watul non urgent watul te te boo xoolee euh, le fait que ministre bi Euh, saisir assemblée day arrêté lépp loo xam ne liggéey la bu commission bi waroon dem. Mhm. autrement di boo boo xalaatee sax ci suuf dafay mel ni ministre bi aussi moo moo moo tey gaawar procédure bi pour mën a arrêter les travaux de de de la commission d'enquête. Mhm. et parallèlement pourtant euh, sur l'affaire euh, Barthélémy Diaz bi nga xamee ne <laughs> jugement définitif bi génn na il suffisait que le ministre de la justice. puisse écrire une lettre au président de l'Assemblée pour que Barthélemy perde sa son son poste de député. Mm -hmm. et pourtant jusqu'à présent c'est pas fait donc des fois da gis deux poids deux mesures c'est comme si daal Sénégal tout mis à l'envers mais doy na waar trop lii moom na gaaw mu nekk benn parenthèse boo xam ne dañ koy tëjaat parce que. avec le recul rien n'est sérieux dans tout ça. Mhm. Mhm. Euh, parenthèse boobule euh, ñàkk tëju ci jamono ji moom moo indi fitna bi ñu nemmeeku ci wàllu politique ci réew mi euh, li ni mel nag laal secteur privé national bi loolee tax entreprise sénégalaise yi fàttali ni ñoom dañoo loru woon bu baax a baax ci coronavirus bi ak crise politique yi nga xamante ni ñoom ñoo njëkkoon am fi mu ne nag ñu ngi tàmbalee tiit taxawaay bi ñu am économiste bi la di Pape Abdoulaye Seck mu rafetlu muy fàttali sax ni investissement privé yi ak activités économiques yi bu ñu moytuwul euh, mën nañoo loxo bu baax a baax ci situation bi Sénégal di dund ci jamono ji ñu ond ci ak non ko bagayu ci fan yoo xam te ni ñu ngi ci guut a jàppal bàyyil goo xam ne kenn mënta xam lu mu doon dal stabilité sociopolitique mooy critère bi ëpp solo ci koy investir bi nga xam moom installé na ba pare nekk ko moom nekk ay deux chiffres léegi ñu nekk ay 4 pour cent am yoo xam ne dañ ko war ay